asalaamaaleykum dal leen ak jàmm ci seen seen Fass Ngom TV di kër gi ngeen taamu di taataan ay xibaar li gën a fës ci xibaar yi jigéenu benn Bokk Yaakaar yi amooloon nañu benn ndaje dimanche bi weesu ci maison de la femme bu fas wàllu tàggat yaram daañu ñëwaat ak yéen ci xew-xew yi amoon ci njeextalu bis yi nees tuut ñu ñëw ci faramfàcce gi. dibéer ñaar fukki fan ak benn ci weer wi ñu nekk jigéenu commune bu Fass amaloon nañu ndaje fële sa maison de la femme ngir waxtaane wàllum financement bi leen monsieur Ibrahima Diaw wutal ak waa promise ñu déglu seen njiit soxna Maretu Sogg waa tey dañu daje woon fii ci maison de la femme bu Fass Ngom woo responsable groupement féminin yi nekk ci commune Fass 55 villages yëpp parce que dafa am benn programme boo xamante ni Ibrahima jaw bi nga xam ne mooy suñu leader di candidat à la mairie moo ñu boole woon nag waa promise ñi nga xam ni ñooy financement islamique ah may wax rek moom du c'est la première fois mu koy def parce que ñëkk nañ fi jox xaalis ñu koy def ñu koy leblente suñu biir mu nekk euh, une économie solidaire boo xamante ni chaque le 10 dañuy daje donc 55 villages yëpp femmes yi si nekk yëpp ku nekk bénéficié wu na ci financement boobu bi biñ si jógee boole nañu ak IMSEC presque lebal nañu 60 millions yoo xamante ni mi ngi si femmes yi muy tourner suñu biir encore kooku xam nga ni c'est un grand pas pour éradiquer la pauvreté tey tamit mu boole ñu ak waa Promise muy financement islamique moom lañ ñëwoon pour éclaircir nan la ñuy def. ba jigéen ñi mën a bénéficier ci ci financement yooyu. waaw man facilitatrice la dama nekk fii di di jàppale jigéen ñi. c'est accessible à tout le monde il n'y a pas de coloration politique fii jigéen ñëpp même suñu le dis bii financement bi mu ñu jox amul coloration politique jigéen ñëpp lañu si woo ñëpp ñëpp si bokk waa fële sa diwaanu Paal candidat yi fa samp seen ndënd ngir nekk meeru dëkk ba. tàmbali nañu waxtaan ak seeni njegeñaale si yéene bi ñu am ca dëkk ba suñu ndaw Ibrahima Diop def na benn jàngat ci candidat yooyu. Paal nag tey ñu ngi fi ràññee lu tollook ñeenti nit yi nga xamante ni ñoo taxaw pour xëccoo gox bi si ñeenti nit yooyu dañ si lim ki nga xamante ni moo di moor gi gay nekk njiit directeur des moor gi gay daal di fi teewal Benno Bokk Yaakaar nee na moom day xool li Paal am mu yokk ko li Paal manqué mu wuti ko te loolu mi ngi si demul bu des kooku di Cheikh Abdou Karim Diop mu nekk njiitum opérateur économique Cheikh Abdou Karim Diop daal di fi teewal ñi nga xamante ni moo di wàllum Sénégal waaye Cheikh ni moom ba mu commencé liggéey fii nga xamante ni moo di Paal yàgg na li ko dese kay mooy bu élection yi ñëwee mu jël ndam li gën a continuer liggéeyam si Paal gën a yokk li nga xamante ni mooy dox Paal ñu tegtal si ki nga xamante ni moo di Mamadou Wade Mamadou Wade teewal fi ñi nga xamante ni moo di partie Progrès l'Espoir kooku di njiit la moo di Mary ñaan Niane kii nga xamante ni moo di Mamadou Wade ni moom kat li muy ñaan mooy képp koo xamante ni rek yaa ngi taxaw di xëccoo paal ñi ngi lay ñaan nga toog waxtaan askan wi wax leen ni boo jëlee fii nga xamante ni moo di paal fan nga ko nam ma yóbbu si ginnaaw loolu nag parti bi des di parti yeewi askan wi ma Amadou Ngom nekk sa bopp ba waaye Amadou Ngom moom ma ngay taxaw ndax neen ñoom seen parti kat ay xale rek lañu àndal ndaxte bo xoolee ñoom ki si gën a mag mi ngi toll ñoom ñu nii ñoom daal li leen yitteel mooy jël réew mi bu ñu ko jëlee ba pare daal di yeewi askan wi ndax askanu paal sonn nañu. wàllu tàggat yaram euh, ca zone yi final bi doxoon ci diggante pay ak euh, bi jëm te bi jëm mujjee jël raw gàddu gi mu nekkoon final bu neex te ñu tuddee woon que monsieur Ibrahima Diaw suñu ndaw papa Oumar Gueye teewoon na ca boobule jongante. ñi la jaar waay. leen gaal waay waa gaay ah ñu am koo xamante ne si looy waxu sóori yal na leen yàlla defal leen yàlla defal ndam jërëjëf comme ni mu ko waxee na leen yàlla defal ndam ah fële sa Yaasañ euh, sa zone Cagnalde final ba ñu fa amaloon ASC Medina mujjee jël raw gàddu gi ci kanamu ASC Jom gi ba tey ci wàllu tàggat yaram waa zone 7 amaloon nañu seen ñetteelu bés euh, ca stade ma wadd wadd bu Ndar ASC Njaxeer dóor ASC Gandon ñaari bal ci benn ASC Fass Ngom moom dafa mujje ñàkk ci kanamu ASC Ndiaw Siir ñetti bal ci benn mu mel ni wàllum qualification tax na suuf ñu déglu Mamadou Sow moom muy tàggat boobule équipe. di sant yàlla di julli si yonent bi di sant supporters yëpp di sant it euh, dirigeants yi ak encadrement yëpp di encourager joueurs yi tamit parce que euh, ci effort yu ñu def yëpp depuis le début di parcours ba léegi bon affaire bi nag bon football la football moom lu si nekk na muy demee rek football moom tey day neex suba du neex. parce que boo xoolee match bi euh, wala boog championnat bi football noonu trois match ñu am benn victoire am deux défaites donc loolu nag boo dama jàpp ne man football la rek football la joueurs yi bon xëy na am na si am nañ si ay part de responsabilité ñun entreneur yi am nañ si part de responsabilité euh, dirigeants yi noonu keneen ak keneen noonu responsabilité moom duñ ko wékk kenn rek ñëpp la waaw mais lu am rek nañu xam ni lii moom la yàlla tuddoon rek ñu nangu ko ak suñu fukki loxo juróom li des mooy xanaa di defaraat rek defaraat parce que affaire yi dara jeexagu fi te football moom noonu lay demee à tout moment da ngay gañe wala ñu gañe la yàlla moo dogal suñu premier match ñu am njaxeer dóor ko te boobu mooy match bi gënoon métti si match yi suñu match ak njaxeer moo gën a métti contre Gando moo gën a métti contre Ndiaw Sir yàlla dogal ñu dem mu suturaal ñu ñu gañe njaxeer ñu ñëw deuxième match bi mu am ay jafe-jafe ñu gañe ñu troisième match bi ku ne xam ne ni équipe yor équipe bu la équipe boo xam si mën na ni 100 pour cent Fass la tey ñëpp xam na ne que Fass daaw loon doxee noonu Fass da daan jëlee ay sept places di indi ay jours wala mu jëlee ay njaganjaay di indi ay jours comprendre nga mais ren suñu ñëwee am confiance ci boy yi yaakaar gëm gëmloo leen ni affaire bi ñoom la parce que da nga daan jëlee ay jours lu ne ñu wax kon tey suñu leen wóoloo ñoom jox leen confiance boobu kon ñun li ñu waroon def def nañ ko. pour man problème am na amul quoi bon parce que sport la quoi da ngay am défaite da ngay am match da ngay am victoire sama point de vue si si si match yi nga xam ni passé na defee li nga xam ne jël nañ ko ak euh, surtout nawetaan bi laa wax quoi en tant que tel mooy bon ASC Fass ku ko xam-xam ni ay ASC bu mag la ren je me dis que ni bu mag la mais équipe bu ndaw la loolu laay wax quoi mooy sama point de vue bu fekkee si côté problème bi defee di lu tax ñu jël ko maanaam dafa am lu des lu bëri quoi bu des lu bëri sax moo des. ASC bu mag la mais équipe bu ndaw la ñuy yóbbu ren quoi peut-être yooyu noonu ñoo ñoo ñoo ñoo waral défaite bi au niveau de dirigeants aussi des na bu bëri bëri bëri bëri ni daan préparer match ni daan entraînement wee avant ñuy dem yooyu yëpp gis naa ne ren amul quoi entraînement yi jaarul yoon jour yëpp nag jaarul yoon comme nu mu war a jaaree xam nga engagement bi aussi des na quoi dama yaakaar naa yooyu ñoo signifié défaite bi quoi défaite yi pour du joueur yi kase du dirigeant yi kase ñëpp la ah di masawu coono supporters yi bu baax nag di leen masawu coono parce que ñoom gis nañu à chaque fois bu équipe bi di dem ñoom ñu ngi seen équipe di leen supporter ñun ñoon la ñuy masawu coono bu baax si defee bi quoi mais en tout cas daal bi moom des na trop trop na lu bëri bëri bëri bëri li ma am nag envers la population message bi mooy képp koo xam ne si ni yow war nga mën a fubal Fass war nga mën a porter maillot bi apporter leen dara bu si xaar ma sàmm bu si xaar ma paate bul déglu kenn yow ñëwal nga def ko juste pour dëkk bi nga ñëw nga su mooy nga jàpp si parce que y a des yoo xam ne ñu ngi si dëkk bi quoi ñu ngi si dëkk bi war nañu mën a nawetaan parce que ñun suñu effectif bi boo xool ren bi presque ay cadets yu monté la. mbokk yi loolu lañ leen indiloon ci wàllum xibaar ñu leen di jox dig daje beneen yoon ci seen chaîne Fass Ngom TV jërë ngeen jëf.